mu ngi doon tey suñu sujet d'actualité dañoo am comme euh, li nga ne moo di la libération de Bougane ginnaaw bi ñu ko jàppee woon fële ca Tamba gis nañ ne bi mu génnee nag li mu njëkk def mooy dem fi nga xam moo di Tamba continuer li nga xam ne moo di campagne am yaakaar naa am na élément topp ana ñu élément ñu ñëwaat. incha allahu rabbi député yu sàmm sa kàddu ci assemblée nationale danañu ci taxaw loolu nag su ma leen ko waxee ngeen war ci bàyyi xel parce que ñun li ñu gëm ay nit lañu ñoo xam ne seen loxo set la te jàpp nañu ne askanu Tambacounda jox nañu bopp sàmm sa kàddu askanu Tambacounda bàyyi nañu xel taxawaayu coalition sàmm sa kàddu di leen jox rendez-vous incha allah le 17 avril le novembre incha le novembre. Bambi dégg nga li nga xam ne loolu la euh, Bougane wax nee na euh, waa Tamba jox nañu bopp ñi nga xam ñoo di sàmm sa kàddu. waa loolu jotagul du ma ko duma ko saxal du ma ko dàq ndax pënd ba wareegul le 17 novembre des na mi ngi juum naan avril dafa tiit du avril novembre la incha allah certifié wu na parce que moom li muy li muy wax moom maîtriser wu ko xamu ko sax ñu ngi koy ndokkeel nag ci génn ki nga xamante ni génne na ko ndax ma porox ndollu ci rek sànni ci toq euh, kàddu kenn du ne ci réew mii nii ñu toll ne justice amatul ku ko wax waxoo dëgg ndax bu justice amatoon yaakaar naa ne 10 jours mi dina nekk de plus kon tey yaakaar na du génn du ndam du lu ñu war a jubal du ñu war a fëgg seen dënd ma koy ñaanal nag moom moytu parce que am na suuf si un mois yoo xamante ne yoon ko ciy teg ak amaan cent mille yooyu yal na ko yàlla yombal cent mille am joxe te mu moytu certes campagne lañ nekk lépp lu mu bëgg a wax na gën a continuer di ko porox dool di ko wax mais bu campagne bi jeexee maa ngi koy ñaan rek rek waay mu modéré ay langage am c'est pour lui beneen bi ci topp Katamba moom lañ jox bopp loolu leeragul le 17 bu yeggee ba ci urne ba def dépouillement ba pare ba commencé nodd bàcc yi commencé leer ci la ñuy xam ñoom fan lañ toj mais moom yaakaaram la wax rek ak yéenem na tàllal te xam ne Tamba joxuñu ko bopp réew mi joxuñu leen bopp da ngeen di xaar indiwu leen programme tegu leen programme seen feuille man lenn loo xamante ni ñoom wax nañ ko muy moom muy Barthélémy Dias muy Khalifa muy tant ci ñoom muy euh, keneen ki lu jigéen li gisuma lenn li ngeen xamante defar ngeen fi benn feuille bu leer boo xam ne indi ngeen ay argument yu leer xeexee ngeen technique xeexee xalaat xeexee xam-xam promettre loo xamante ne tey bu ngeen demee ci assemble bi te xam ne seen jëmm tegu leen ñun askan wi ñoo leen fa teg ñun ñoo leen ñun ngeen war a représenter ci askan ba di xool kenn ku ci nekk sa fief muy sa gox fa nga nekk lan la ñuy jooy ak lan lañ bënd bëgg nga jàmbatu ko taxawal ko waa askan wi ci biir assemblée ku nekk xam ne ne assemblée bi ñuy génn ak ñenn ñi ma ko sañee wax itam kenn ku ci nekk fëgg sa dana nga fa nekkee woon ak sa bopp ñi doon liggéey xam nañ seen bopp ñi liggéeyoo xam nañ seen bopp tuuju fuuta ya fa nekkoon di wax waxi dof ak di xeex ak xuloo ko def leen saf ñaanuñ yàlla ñu amaat loolu ñu ngi ñaan rupture am donc rupture boobu di am ñii ñi nga xamante ne ñoom la borom subhanahu wa taala nam ne ñoom ñoo koy doone yàlla na majorité nag président am ko du ma taay di ko wax samay ñaan la man la concerné maa ngi ñaan borom subhanahu wa taala majorité yàlla na ko yàlla jox réew mi jox ko président Diomaye ak PM Ousmane Sonko ba lépp li nga xam ne mëbët nañ ko envisager nañ ko yeggale ko ci seen feuille de route borom suna taala may leen ko ba lépp lu ñu promettre askan wi ak tamit sànq moo mu ngi koy wax ci biir waxam li nga xamante ne muy justice dañ ko soxla Macky Sall li nga xamante ne bàyyi na ko fi def la vie facile ne tër dem yoonam admissier lu bëri de facilité job bu bëri ñu ngi réclamer justice 84 morts yi ak ñi nga xam ne seen loxo seeni tànk dagg na ci problème mu fen moom daa saar ak li fi xewoon ci ay fenam ak ay mag yi jëmm ñu ko doon fen la loolu que ça soit clair dañoo soxla justice bu leer te justice boobu nag yéen sénégalais yéen ñi ñuy setaan ak ñi ko sañ a wax itam li ñu koy may mooy majorité à l'assemblée ba li nga xamante ne ñu ngi koy ñaan yàlla pour mu leer li nekk ci dëgg ñuy lekk xaalis askan bi ñuy guux ak ñi ñuy def yëf ak yërta bi lépp yàlla leeral ko ci barke Seydina Muhammad loolu la am pour wax te xam ne moom naxaar résultat yi moom teel que demaguñ ci élection demaguñ ci élection mais dafa mel ni oustaz Bougane ndeysaan yi d'après li nga xam ne am na ko mbooloo fële ca euh, Tamba ñi naan am na mbooloo ñu ne amul mbooloo xëy na moom mbooloo ga ko moom doy na ko. Hmm. ba nee na moom daal Tamba jox nañ ko bopp. waaw xam nga politique moom gëm-gëm la rek. Hmm. Euh, lu am li am solo mooy ñu campagne ci jàmm ak mu jeex ci jàmm ak salaam kuy gañe gañe ci jàmm ak hmm. ah, ñi nag kenn moomu leen nit ñi dañuy analyser ak seen bët. dañuy xool li am solo mooy li ko war moom na ko def. ma koy conseillé mooy bugaan li ko war na ko def. na politique na dafi campagne am fu mu bëgg a dugg na fa dugg lu mu sentir lu mu bëgg parce que nag citoyen la am na ci droit. Mhm. ni Sonko amee droit ci réew mi noonu la Bougane amee droit ci réew mi. yàlla moo dogal nag yàlla moo joxe nguur jamono ji ñu toll favori ñi nga xamante ne ñooy favori mooy ñi nekkoon ay opposant démb muy Jomaay ak Sonko ñoom la yàlla teg loxo nguur gi seen seen kaw l'essentiel ak lu mën a xew yàlla leen yàlla may doole ñoom joo xamante ni dinañu mën a gérer réew mi. teg réew mi ci yoon orienté réew mi teg ko fi ñu ko war a teg Bougane tam bu ko kenn sànni xeer wala nga koy nga ñàkk am ngëm-ngëm ci moom li mu gëm mooy moom daa gëm ni leader la gëm na ni mën na politique gën na gëm na ni fi mu bëgg a yóbbu Sénégal mën na ko faa yóbbu ci xalaatam ci li mu gëm mais da ko koy accepteel Modou mhm. ni ku nekk la mu gëm dañ la koy accepteel ku ci nekk ak sa cër yàlla mooy séddale ni mu ko neexee tey jamono ji ñu toll bay ne ku ne xam na ni Sonko yàlla da ci moom Diomaye mooy président mais ku ne xam ne Sonko moo yor bayre bi def defu suñu borom la yàlla mooy fal nit nu mu ko neexee boo xoolee ni yàlla falee Diomaye jaarale ko ci Sonko nga xam ne yàlla mooy séddale Sarr kii euh, mënul politique. kan euh, Bougane. Bougane mënul politique. parce que Bougane instant yi xam nga lan lay def ci bu tànk lay def. waaw moom indiwul innové wu loo xamante ne ni moom moo ko indi en personne. waaw ni lii nii nit ñi dañ koo gis ci moom. waaw xam man li ma tiital baan bi. ci réew mi. man li ma tiital ci réew mi ñu déglu eh, yéen tam qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a non non non qu'est-ce qu'il a dañoo am. bayre bugaan amul bayre maanaam bugaan nga wax de dama ni yow yéen nag non ñun moom suñu def yow yaa yaa war di raakaat ku génn ku génn thème bi yaa a indiwaat de kii yow tooñ nga ma yow tamit dama ma dugal si ma cadre waat ko moom ma laaj moom da nga bu xam nga yaa ma laaj di si bugaan may ñëw man nii Sonko ak Jomaay yàlla moo leen bàyyi leen fal leen mënul tudd ci réew mi politique te doo tudd Sonko mhm. réew mi kenn du fi tudd politique de loolu du Diomaye mais nañu nangul Bougane laa ne politique bi muy def moom jàpp na ni moo ëpp xel jàpp na ni moo gën jàpp na ni li muy def moo rafet mais loolu nangul ko ko. xel pondeuse la non non bu lox loolu. bu lox loolu baam bu lox loolu xam nga lu tax. xam nga lu tax. Ah. taxawal ko ba. ndaanaan la amul xel bu ko taxawal. c'est ça mais pare ndaanaan la nag quoi qu'on puisse dire xam nga luy coow li te Sénégal ñun ñëpp ñu war a tiit ñun ñëpp dañoo jàpp ni yëf dafay yomb mu njëkk ay pa ak ay jeunes ñoo daan xuloo ci politique gu Sénégal léegi jamono ji pa yëpp dem nañu ay jeunes ñoo fi nekk ay deretu ndaw gis nga problème yi ngeen gis ne violence yu bari yi bis bu ñu ci waxul barki Seydina Mohamed Moodu day gën a yokk waaye du dellu ginnaaw ay deretu ndaw ñoo fi ne ay xale mooy li ma la wax demewul noonu de ah. politique gu Sénégal bii laa la wax ay xale ñoo ko gérer ay xale ñoo ciy wax ay xale ñuy xuloo ay xale ñoo ci am parti may wax ni bu ñu bu ñu amul ñu leen dimbali ñaar ñaanuñu fexewuñu ba jàmm am problème day gën a bari Sénégal ci côté violence te fii laa taxaw wax leen na ngeen téye loolu Bougane nag li ñu koy conseillé mooy na campagne campagne yàlla dogaloon na am na fu mu nekkoon yàlla génne na ko ci jàmm ak salaam mm-hmm. wane na ni li nga wax sànq dëgg la mm-hmm. justice am na ci réew mi mm-hmm. lépp loo gis tamit dañ ko war a teg ci su ah, suñu ko téye woon bañ koo tëj bañ koo ubbi man de dinaa am beneen gis-gis ku ma am bu doon dañoo téye bu baax non franchement ndax ay ñooñam loolu la ñuy wax kenn taxawaat taggaat justice bi kenn du mën a setal ne dañ koo politiser ah. mais ñoom dawal nañu li nga xamante ni mooy yoon justice may na ko liberté am. Mhm. ay ay ay ay kii un mois yëpp c' est des détails parce que gars yi dañu gën a dañu ay trois mois condamnation la. mais góob ma ne man ci diggante bi. moom cuuneem dina ko dugal ci ay détails. waaw ba pare nañu naan jàmm. jàmm tëj gi ñu arrêté ko wàññi yi ah, ah, dafa de. ku def kaso yi ku def nan la tëj. waaw ah, koo xamante ne mën nañ la maslaa nañ la maslaa. waaw loolu kay d'accord nañ ci. loolu indi jàmm ci réforme yi am justice bi sax ñu koy wax. d'accord nañ jàpp ne yoon am na Sénégal mën nañ gën a jox bopp li nga xam moo di suñu yoonu réew mais tamit gis nañ euh, bi mu génnee première euh, discours am bi nga xam ne def na ko fële. mën nañ ne gaan mu ngi moytu bu baax a baax li nga xam mooy jëflanteeg yoon parce que kàddu yi yaa teg na ko ci yoon moytu na bu baax <laughs> loo may nappee. damay napp ma waaw Assane nee na ma nii am lante ah, ak yoon yakaar naa ni ñu ëpp ci Sénégal yi taxaw ñaanal ko yàlla ñu bàyyi ko tàmbali ko suñu njiitum réew président Bassirou Diomaye Faye fay mm. njëkk a taxaw ñaanal ko comme ni ko senegal yëpp ñaanale waaw parce que taxaw na ñaanal opposition boobu ñu tëj yal na ko yàlla génne si loolu ba mën a delluwaat si njabootam muy loo xamante ni Sénégal gépp ko rafetlu ku si demee ne PDC euh, Cheikh Niass déplacé wu fii dem daan ni bugaan mi nañ ko bàyyi sans condition nañ ko bàyyi immédiatement mhm. Cheikh Niass noonu nii la def ñu daal di koy bàyyi mhm. kon nag taxawaay ba nga xamante ni waa juróom bu baax wa waaw waaw loolu xam nga nit ki nee naa la ah. nit bu nekkee si ay xat-xat ah, seex mi seex laa seex laa nekkoon sax seex ñaas ah. gis na ni saa bu ma saan nekk si ay xat-xat rek bugaan day ñëw taxawu ko saa bu ma saan nekk si xat-xat bugaan ñëw taxawu ko moo tax tey bi bugaan amee xat-xat mu déplacé wu fii ànd ak ay kilifa dem fekki ko seet ko ndokkel ko ba pare jël ab discours boo xamante ni si jamono jii neexut a jël ndax dañu nañ ko bàyyi immédiatement nañ ko bàyyi sans condition mu delluwaat si ab liggéeyam te noonu ma ko bëggee woon noonu ma ko waxee yàlla dogal na ko moom Cheikh Niass hmm? yow nga foog déclaration Cheikh bu am na benn influence bu bu baax sax ah, ah, bu baax moo tax ma ni <laughs> seex ah, discours discours bi mu def waaw maa ngi ñëw président Diomaye laa foofu laa njëkk Cheikh Niass li def dafa am solo si déplace waaw mënoon naa bañ a déplace mënoon naa def dem tuwit wala mu def émi ah, ah, waaye déplacé wu dafa xam dafa xam waaw mu dem fa ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di ko ñaanal maître Sidiki Kabaat mënta dëkk Tamba ñu indi fa ab politicien mu tëj ko tàmba mu tëdd jàpp boppam mënta ne il faut que mu déplacé wu dem seeti ko taxawu ko ba mu génn si xat-xat yooyu ndax dafa am foo xam ne da nga fay toll foo xam ne nit ñi dañuy xuloo am na foo xam ne dañuy xeex am na foo xam ne dañuy waxante lu ne mais am na loo xam bu leen boolee far force di ngeen koy ànd nit ki bu xisee nekk si ay xat-xat foofa lay xamee ñi ko bëgg ak ñi ko bañ ak loom lu mu la mënoon di wax ak fu mu la pointé woon bu ne woon xam ne Assane du nit ku baax Assane nit ku bon la mais bu nekkee ci xat-xat Assane ñëw xamal ko ne ko yaa ngi may jàpp nit ku mais ku baax laa te ku la bëgg laa dana xam ne ah kon de Assane mi ñu ma doon wax ndekete Assane nit ku baax la ndax xam naa ne xam naa Kaba bi ñuy jàpp Ousmane sonk mu ngi woon fii ci gouvernement bi boobu fu mu nekkoon kan Sidiki Kaba hmm. bi ñuy jàpp Ousmane Sonko fii Dakar hmm. boobu mu anam moo ko jàppoon hmm. pour ma pour ma yombalal la ko léegi kii nga xamante ni mooy mooy Bougane dana xam ne kii di président Diomaye it moom xam na ne Diomaye xam na ne moom mooy njiitam jumaay xamal na ko ko xamal na ko ne ko yow maay sa njiit te sama njaboot nga bokk si ñaan googu mu ko ñaanal te buggaan xam na loolu kon loolu day lu am solo bu ko defee campagne bi nga xamante ni mu ngi koy campagne it campagne bu am solo la xam nga ko da ko wax dana leen ful bii ngeen di def am na solo fu ma dem mbooloo mi génn am na solo waaye dafa am lu ko ëpp solo mooy ngeen jëli seen carte yi te wote ji waaye fulub kese ngeen la bëriwut kon nit ki nga xam ne mi ngi dem tey nga gis ko ñetti otoom wala nga gis ko kenn topp ko nga nit ki pour pourtant mën naa am ñu toog seen kër di xaar wote jot ñu woteel ko am na ñoo xam ne fu mu génn fu mu génn ful bi te bu wote baa duñ ko woteel am na ñoo xam ne ful bi ne mais boo dee xool campagne yi jàll Amadou Ba li mu doon dajale si mbooloo ak ñeneen ñi li ñu doon dajale si mbooloo gis nga bi résultat yi génnee kon nag nit ki maam bu ñu xeeb kenn kenn ku nekk na nekk si li ko war am na ñoo xam ne porte à porte la ñuy def di dugg ñu ñi di waxtaan ak ñoom ndax amuñu moyens yi nga xamante ni. Mhm. moom lañ war a man a campagne. Mhm. mais bëgg nañu participer assemblée. Mhm. kon daal ñoom ñëpp nañu dem assemblée. ñii wote jeet dem xool ni kii may woteel de bu ma ko woteelee dina jur njariñ nga woteel ko. kenn ku nekk woteel ko ko neex. Alaaji Modou ginnaaw Bougane li nga xam ne defoon na ko fi yëpp ak li ñu ko doon toppee tey nga gis ne Bougane libre la tey ana ban jàngar rek ngay jàngat ci suñu wàllum yoon. waaw Bougane de man bokkoon naa ci yi nga xam ne. ñu ngi ko doon ñaanal pour mu génn ndax kaso moom c'est vrai que nit ñee tax ñu defar ko. wante kenn du ko yéene sa moroom kenn du ko yéene sa noonu vraiment. ndax liberté ñu privé ko rek ak nit ni ko yàlla mooñee ci liberté suñ la ko privé dafay nekk sanction bu xaw a doy waar. léegi nag bon man euh, li ma comprendre mooy pour man Bougane a compris beaucoup de choses maintenant man parce que ni ma gisee démarche am bi mu jugee kaso gis naa mu mu gagné en maturité. te loolu ci lañ ko doon woo weer yëpp ci ginnaaw naan buggaan na dal ni muy politiquee baaxut na xool ni muy def loolu dañ doon dañ doon alerté rek ndax xam nga tey jii ni ñun ni man man sa bopp ma wax ci lu buggaan lu baax ma wax ci lu bon jëriñu ma dara ndax buggaan ba muy dund ba léegi xëy na man ak moom mosuñoo tegante bët te koo tegante bët xam nga tegante wu leen loxo kon amul intérêt man amul njëriñ bu ma ko amal moom amul njëriñ bu ma amal kon bu ñuy wax ci moom di artu da fekk ñuy alerté lii lañ doon gis ndax politique am na pante boo xam ne boo ko jëlee du la jëriñ dara du la yokkal nit du la yokkal crédibilité te mën nga ci am jafe-jafe bu nekk. Mm. mais c'est bien heureux mu nekk situation bi nga xam ne nii lañ ko defee c'est bien heureux ndaxte tey jii nii bi ñuy démarrer dañu wax naan Ousmane Sonko la ma ne dégg naa Ousmane Sonko mu waat mu ne yàlla moo ko tiim waxu ci defu ci te mënoon na ko bañ a wax. Mm. jomaay bi ñu ko laajee moom tamit dafa jël yàlla teg seede. ne waxu ci jotu ci bi ñu ko ko waxee dafa ne def leen seen liggéey kon dañu jàpp ne benn mbir la bu amoon ci moom ak digganteem ak waa gendre gendarmerie gendarmerie gendarmerie ko waxoon taxawal mu lànk ñoo ñu ñoo ñëw layoo ak moom ñu laaj leen bi ñu leen laajee ñu ne xam dafa dañ ko toppoon ci ñetti ñetti chef d'inculpation que dafa doo dafa xeex ak ñoom mm-hmm. rébellion bi dañ ko wax dañ ko wax taxawal mu bañ taxaw bañ mooy refus d'obtempérer bi yàlla dina leen jàmm léegi nag gendarmerie bi ñu defee témoignage dañu ne xeexalu ak ñoom maanaam xeexul ak ñoom euh, taxawal mu bañ bi ci lañ ko daan mooy que ne nanguwul li ko gendarmerie doon def loo. mais xeexul déedéet xeexul ak ñoom loolu la loolu maam yooyu de kii déli yooyu dañ ko dañ ko ci acquitté carrément léegi nag ñu ko liñ ko konam ne mooy refus d'obtempérer bi te loolu noonu citoyen bu nekk boo bu la. force de l'ordre arrêté ci bi te respecté woo ko loolu mën na laa dal outrage à agent bi dañ ko dindi tamit outrage à agent bi dañ ko maanaam yëkkatee kàddu yu ñaaw ak agent voilà maanaam tekki xotti war maam loolu tamit dañ ko ci teggi léegi nag ci loolu ñu ko konam ci lañ ko konam ne à un mois de prison avec sursis ak cent mille francs amende ñu xam ne kon fi mu toll nii gis nga bu fekkoon dañoo nekk ci régime Macky Sall kon Bougane ba léegi instruction lañ koy yóbbu nga tàmbaa ñu ne dañuy ndax fii jàpp nañ fi nit moins que def mm-hmm. rek mooy dëgg jàpp nañ fi moins que lu bëggoon def nit aussi def na fi lu ëpp lu bëggoon def te kenn jàpp ko loolu loolu loolu moom moo fi amoon léegi nag comme génn na alhamdulilahi rabbil alamin ndax man depuis le début man dama bëgg buggaan bokk ci élection yi dama bëgg mu campagne ndax buñ ci jógee ñun bët buñ koy xoolee ñu mu mun a soppeeku ñu xam ne buggaan mii kat ah dañoo jum ci moom ndax ku am dayoo la ci politique wala ñu ne ah buggaan mii kat ndeke moom fi muy yóotu àggagul foofu noonu te loolu élection rek moo la koy may te bii bu la rëccee yaa ngi demati ci élection municipale dafay yàgg bu ci jógee yaa ngi demati ci élection présidentielle dafay yàgg kon ñu ngi koy ñaanal mu dellu ci njabootam ndax dafa bàyyi ay tout tànk war leen taxaw léegi nag ñu ñëw ci campagne bi xam nga campagne wax dëgg fa yàlla Sénégal bu nekk am nga droit bëgg nekk député waaye am na liste yoo xam ne jaaduwul dañu waxante dëgg nag mhm. tey jii ñun ñu toog fii yëpp ci salle bi ku ma ci lim la woon juróom benn liste mënoo ko lim te quarante une lañu loolu dëgg am na yoo xam ne jaadu na loolu xawma état bi naka lay defee ay moyens c'est vrai que xam nga la constitution moom may sénégalais bu nekk boo amee yenn responsable wala yenn at yi wala nanga nga def laaj bu la neexee mais dafa am ñoo xam ne sama classe gi waruñoo laaj. wallaay am xam sax moom. dañoo war a wut yeneen sanction yoo xam ne xam nga perte de caution 15 millions de caisse dafa oyof dañoo wut yeneen parce que aussi écoutez ça va nous perdre beaucoup de temps ak beaucoup d' argent ça va nous faire perdre beaucoup de temps ndax këyit yooyu ñuy imprimer bu ñu ko xeeb de xaalis bu bari la. citoyen rang bi ñuy rang taxaw ci buntu vote bureau de vote pour voter coono la te liste yi moom nañ yem ci quatre wala cinq dañu waxante dëgg dong nag. Ah. man dafa damay seetaan RTS je vois des gens di di wax man mi nga xam ne nekk naa ci presse plus de vingt man xaw ma leen yow man mi nekk ci presse plus de vingt xaw ma leen yow naka la Sénégalais di xamee. léeg xam ne sabotage la. mais 15 millions état moo koy moom moom. dañ la koy remboursé. non du problème remboursé non xaaral xaaral xaaral xaaral bambi bambi xaaral nañ def mathématique. waaw dama bëgg xam 15 millions fu mu a 41 listes. voilà dañuy def y' a y' a 41 listes baal ma rek. na ma na ma di di baal ma lii c' était pas prévu. ñu ñu def ko y' a 41 listes. bu ñu ko multiplier ku nekk 15 millions. waaw ah, loolu laa lay ah, calculer 15 millions xam ñaata la. 615 ah. millions. xam nga élection yi ñaata milliards la 14. xam nga élection bi ñu bi ñu bi ñu demee ci ci ci kii bi ci impression fiche yi rek pour ñu voter ñu ne dañ ko def A6 maanaam page bi ñu xaaj ko quatre fois wala wala six fois ñu defar bulletin yu toll noonu comme bulletin présidentiel yi dañoo bañ te loolu bu ñu ko accepté woon dañuy gagné huit milliards déjà dañuy économiser huit milliards te loolu noonu impression impression eh, impression bulletin yi kese la léegi xoolal administration territoriale bi ñuy déployé mm. li ñuy déployé ci oto dañuy déployer ci bureau de vote urne ah nangam agent yi mm-hmm. mais c'est c'est beaucoup d'argent alors que ñoom li ñu cotiser lépp six cent quinze million la ah c'est vrai que dañ naan la la démocratie n'a pas de coût mm-hmm. dañ la koy wax mais dafa am liste yoo xam ne wax dëgg fa yàlla bu jógee ci lii nañu saytuwaat suñu mode dañuy demee élection non du problème ku siiwut comme représentativité non du problème siiw Sénégal bu ñu amoon mais xaaral Assane. Ah, Assane ñëpp am droit laaj. nee na moo leen ko may. Ah. constitution xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw non xaaral ma ñëw non non waxuma politicien Assane. mais ñëpp daa war a non non Assane ah. Assane bu la bu buñ leen na ñëpp laaj tamit warul tax ñëpp dem laaj am na ñoo xam ne waru waruñoo laaj ndax condition yi gën a primaire pour nga am ko doo ko jot Assane Assane looy demee di laaj loo dul jot. dañuy rek. dama la wax non dama la wax non non xaaral non parrainage bi doon compliqué non parrainage bi baaxul parrainage dafa baaxul mais dañoo wut yeneen moyen mhm. ay borom xam-xam ñu ngi ci réew mi nañu réfléchir par rapport li naka lañ koy gérer mais dama ne sur quarante et une listes yow en tant que sénégalais mhm. xamoo ci six oustaz yi nëbba ñu nii ku ci xam six na ma wax boo génnee boo génnee boo génnee takku wàllu soo mhm. génnee jàmm ak njëriñ génnee sàmm sa kàddu génnee Pastef xam a kaat la xam nga kan nga ci mën a tegaat Thierno Alassane Sall peut-être nga ne Abdou Karim Sall bu nekkoon ministre ARTP a nga ne sax ñoom ak si xaar rek xaar rek moom Assane Nassere mii tey ci suba maa ko dégg ci jommen mu ne Ablaye Sylla li mu yor ci oto moo ëpp nit ñi koy topp. dëgg la te élection bi dafa bëri nit dafa bëri oto. yàlla ni ma ko wax mu ne mu ne waa ji li mu yor ci oto. waxaar non waxul gentillesse dañuy wax non non non waaw li mu dëgg la boo seetlu ni ñu non mais li mu wax dëgg la. li poussage non Assane Diouf la sama temps de parole du vraiment. Assane Diouf la dafa am ñoo xam ne protection bi. ay c'est-à-dire xam nga perte de caution bi dafa dafa dafa oyof. perte de caution bi dafa oyof 15 millions du dara. ci ku bëgg a dem da ngay def politique. Mhm. mais dañu war réfléchir ci yeneen form yi ñu koy defee. wax dëgg fa dañu ci yeneen forme yi ñu koy defee ndax man damay gis RTS ñoo xam ne wóor na yàlla joxee micro RTS sax problème la. caméra bi leen topp rek fere fere fere fere bu baaxul la. Mhm. élection bi ça va se jouer sur trois quatre coalitions yi la. ñi ma tudd nii ça va jouer écoutez ñi ci des yëpp zéro zéro plus fort reste duñ ko am. léegi nag tey li gënoon tey jii nii bu nekkee dafa am association xam ne dañu bëgg ne bokk ci élec campagne bi nañu réfléchir ci beneen forme bu ñu koy defee mais 41 liste ci li ma gis ne nii yenul maanaam muy benn léegi nag campagne bi mu ngi dem ñun ñu ngi suñu gët di xool xam nga Assane wax na fi wax boo xam ne waxi vraiment ku nekk ci beneen côté bi rek la mm-hmm. politique nit la nit ñi nombre la ñu waxaar rek xaar rek nit ñi nombre la ñu man damaa gis a gudd damaa gis a gudd gis nga nit ñi dañu am lecture waxaar rek nit ñi dañoo war dañu am lecture gis nga Assane natt boo gis dafa am ay baromètre loolu lañ koy tuddee mm-hmm. maanaam ñoo xam ne da tànn pour xam li fan la jëm man fi ma toog yow nii nii nii nii man mun naa laa jox résultat élection yi à peut-être quatre-vingt pour cent je te dirai que Pastef mooy am majorité. incha allah Macky Sall mooy ñëw deuxième position. non non defal naa ko rek. Macky Sall rek waxaar xaar rek xaar rek xaar xaar rek du xaar rek xaar rek wax moom. rek waaw xam nga fii laa bind ko. xam nga waxaar bind xam nga man damay wax léegi yéen waxaar rek man damay wax xaaral loolu duma ko xam nga fii ma ne pouvoir lu mu gàtt gàtt day am 30 35 pour cent mhm. yaa ngi man leen jomaay mooy jiitu Amadou Ba moo ci dama ne la Pastef day am majorité bu confortable loolu laa gëm. ketey topp Macky Sall la xamul tax xamul tax di topp. Mm-hmm. boo jëlee intercoalition bi. Macky Sall li mu ci yor ci département dafa bari. Mm-hmm. te gars yi ci liste gars yi xam nga département par par rapport bu mu perdre ko problème la Assane gis nga yi boo moytuwul yëpp Pastef fa koy gagné sauf à exception de peut deux trois quatre cinq département mm-hmm. yéen ñëpp Pastef fa koy gagné. léegi nag la nga am ci département ba xam nga département bi dañ ne. département yi bokk gagné c' est cent quinze députés. daanaka cinquante yi la liste nationale bi di séddoo. d'accord léegi yow nga jël ku mel ni ñoom Barthélemy Diaz ils sont présents ci seize départements. Mm. somme voix yi ñu am ci seize départements yi moom la ñuy jël. pour ñu xam ñaata député la am ci liste nationale bi te pour nga am benn député ci liste nationale liste nationale bi il faut nga am à peu près soixante mille voix pour nga am benn député ci liste nationale bi mm. ndax ndax yi ñoo lay nattal li nga war am ci liste nationale bi te Macky moom moo teew ci département yëpp comme après après Pastef ah, kon Macky Sall mënul lu dul deuxième nombre de député dama ci taxaw xaw ma ko beneen bi ki ci toppaat mm. Amadou Ba Ah, waaw mooy raw ñii sàmm sa kàddu te bañ dem ba ci kanam di dina leer non non xamul da xamul da non xamal la c'est-à-dire que c'est-à-dire que xamal la gis nga sàmm sa kàddu sàmm sa kàddu je te dis un truc je je n'ai contre eux mais sàmm sa kàddu mm-hmm. ñoom ci xam nga seen force fa lañ ko miser mm-hmm. ci Dakar mm-hmm. seen force yëpp Dakar lañ ko miser sàmm sa kàddu mën nañu am Dakar rek ay voix yu conséquent mais boo génnee dakaar peut-être nga dem Thiès ñu ne pur ndax pur fa la am doole diggante Thiès ak Tivaouane mais boo ñëwee boo ci paree après fan la ñuy jëlaate yeneen voies du fait que sax ñoom teewuñu ci yeneen def ci yeneen gox-goxaat yi mm-hmm. foofu la enjeu bi nekk léegi nag élection euh, législative ku la ëpp représentativité ci département bi moo ëpp chance pour am plus de députés mm-hmm. léegi nag yeneen liste yi nga xam ne zéro zéro zéro zéro zéro zéro zéro loolu dama bëgg nguur gi mu taxaw ci mu ba nga xam ne beneen élection bu ñuy defati du ñu am di def ay këyit yoo xam ne après maire ñoo koy laxasee caaf ñi di ko laxasee ay pinton ñi di ko laxasee ay leneen ndax loolu noonu yàq xaalis la te réew mi nekkatuñu ci yàqum xaalis dañoo nekk ci yaxanal ak sakana ndax li ma gëm mooy li El Malick Ndiaye wax ministre El Malick wax barki démb assemblée bi fi nekkoon bu ñu normaloon Diomaye du organiser élection yi léegi dañu leen di bàyyi ñu continuer mais anormal bi assemblée bi anormaloon tax tey jii nii ñu andi élection yoo xam ne élection anticipée la d'accord